ministre de l'intérieur commencé woon Touba Medina Njaareem askan wi ñoo jékki-jékki rek ne couvre-feu dafa doy def manifestation ñu ñu aj couvre-feu ba 22 heures. donc xanaa li ñu ci wax lépp dara du ci dëgg. agents mooy ay magistrat yu maandu ñoo ko liggéey liggéey bu mucc ayib teg ko askan wi ki ko seen bopp donc. lii ñu def tey dafay bokk dafay mottali rek li fi jëlee woon couvre-feu mottali li fi jëlee woon corona day mottaliwaat tey ah, ñi jël suñu xaalis ñu topp leen. waaw xam nga tey ndaje bi société civile bi ñoo ko woote man euh, su doon parti Pastef moo woote amaana du ma fi ñëw. mais tey dama fi ñëw en tant que koo xamante ne man du ma am politique bokkuma ci benn parti mais Sénégal kenn mënul woote euh, te militants yi duñu ñëw parce que ñii ñii chiffre politique ñoom ak ñoom mooy ñooy askanu Sénégal rek euh, suñu waxantee dëgg tamit turu Ousmane Sonko ak dayoom moo toll foo xam ne soo demoon ci benn ngénte nga sondage di nga xam ne ay nitam ñoo fa nekk soo demoon ci buntu margo ñi teg néew di ko waaj a teg nga def foofu sondage di nga yëg ne ñi gunge néew bi ñi fi nekk Pastef ñoo ëpp soo ñëwee tamit ci ndaje société civile bi soo xoolee ñi fiy nekk parti Pastef wala boog ay sympathisant Ousmane Sonko ñoo fay ëpp donc loolu la rek mais Pape Djibril euh, man li ma koy wax ah amoon na temps yi jàll accident bu xaw a ndaw moom ak euh, artistes yi gis naa ne seere na ko euh, jàll na lii affaire politique la donc Ablaye Wade da daan wax ne su dee homme politique bu xëyee su amul ku mu xulool jar na mu dem ndej police pour ñu tudd ko donc li am nii tey euh, man jàppee ko incident politique lecture la bu mu war a def euh, avenir am mi ngi ci kanamam na ci jàngat rek lan moo ko waral pour mu gën ko defaraat parce que tey ñi ko doon ñi ko doon ñi ko doon euh, yuuxu fii tey mën ngaa wax ne ñëpp ay moroomam lañ ay ay ay ay kiiwam lañ naka la nag lan la war a sensé ak lan la war a def liggéeyam donc ba ba ba bu ëllëgee lu mel nii du am parce que tey am na li nga xam ne moo gën a jafe ci homme mooy nga dugg ci mbooloo moo xam ne tey milliers de milliers de personnes kenn neewul kii kan la ñëpp xam nañ ne Pape Djibril Fall mi ngi nii donc loolu boo ko am politique amee rek am na lépp li ci des nag daf koy seereel boppam euh, mu xool lan la war a defaat voilà